mën a euh, Malay am na remplaçant. d'accord parce que booy bi li muy def lu leer nañ la mais booy bu ñu leen encadré mais ils vont s'en sortir. te dina am ñeneen ñuy ñëw. doolee ko ci aussi. d'accord